ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ah, ci li nga xam ne mooy abonnement yi cant ah, ñu yel na leen ah, ñu commencé li nga xam ni mooy xibaar yi ak Sadio Mané mi nga xam ne entraîné tey jii ak gone yi balaa ñuy entamé seen deuxième match bi xam ne war nañ koo football ci li nga xam ne mooy Bundesliga ba loolu ci xëtum la ki nga xam ne mooy Camavinga moom it dinañ ñëw ci moom ci njobbaxtalu li nga xam ne mooy xibaar yi keneen ku entraîné bokk na ca beneen doomu Sénégalais bi nga xam ni Ah, moo nekk Leroy Sané nga xam ne Allemagne la jël nationalité waaye ay d'origine am ñu ngi fii ci Sénégal ak ka nga xam ni ah, moo ah, nekk Bouna Sarr moom it bokk na ci entraînement bi nga xam ni amoon na tey jii ngeen gis image yi noonu mu nekk entraînement yoo xam ni yu amoon solo la ñu jël ko ci côté yu ne loolee dañ koy door rek ak borom dior bi nga xam ni saf sàppkaar macha allah Sadio Mané moom it def na entraînement fële nga xam ne mooy ñax ma ne ca Bayern li nga xam ne entraînement yooyee ña nga koy def pour waajal li nga mooy seen match bi nga xam ne moom nañu dëgmal gone ak sénégalais gi nga xam ne fi mu toll nii daanaka mi ngi door a commencé wala mi ngi door a entamé ñaareelu match sam boo xam ne euh, saison buy door a commencé la boo xam ne euh, bu nara euh, am ay xumb-xumb lay doon ndax bu ngeen xoolee saison bi mook bu déwén ba bu soobee yàlla yàlla ak yàlla lay doon ndax na fi mu toll nii temme ah, danoo soxlaatul sax li nga xam ne mooy championnat Allemagne wala boog bu ñu koy am dinañ ca ànd ak mbégte waaye la na ca ba nekk tête d'affiche ba nga xam ne ah, tey ji moo leen tax a jóg muy Ligue des champions boo xam ne ah, gëñ nañ ko laal ñu yaakaar ko nag ginnaaw bu fi Bouna Sarr nekkee doxal loolee sottiwu ñu indiwaat keneen muy Sadio Mané mi nga xam ne moom xam na luy Ligue des champions tey jël na ko te catégorie Bayern gii nga xam ne moom la yor daanaka ña fa ne di football fii muy wax ak yow amul kenn koo xam ne mos na cee jël li nga xam ni mooy Ligue des champions ci équipe bi yëpp nga xam ni euh, moo nekk fële ca euh, na ak Bayern loole tamit di lu jar a bàyyi xel moo tax daanaka ren di ñoom dana danañu def lépp loo xam ni mën nañ ko ci xeeti football wala ci xeet yoo xam ni xeeti fexe ba jël loolee di ligue des lay doon loolee tamit rawu lii bët loolee ci sunu kanam la nekk nga xam ni ah, daanaka ka nga xam ne nag moo ca nekk ah, kanu ciy gën a ràññee wala kan lañ ci gën a yaakaar Sadio Mané du ko rom moom mii nga xam ni mooy latral ah, droite ba sénégalais bi di na Sarr Sadio Mané moo nga noonee di ñëw kon loolee lépp bu nu ko tënkee daanaka lay doon saison boo xam ne bu nar am solo la nit Ah, dinañ fexe di leen ci ànd ak ci saison boobu nga xam ne ah, mat yëpp benn match bu mu ci doon boo xam ne gone sénégalais yi ñu ngi koy football danañ ko décortiquer andi leen ci ay yoo xam daanaka dara du leen ràcc ci li nga xam ni ah, mooy sénégalais yi nga xam ne ñooy football ci Europe rawatina ki nga xam ne mooy Sadio Mané keneen Kafadi Ngam mi nga xam ne numéro 12 bi bi mu toll nii moom lañ ko jox ci sëmbaxloo ba nga xam ne mooy am ca Real Madrid te it moom daanaka ma ngay yéeg ay cadre di joxe ay ordre bëgg ni bëgg naa def saison boo xam ne moom mi tamit saison bu am solo lay doon pour gars yi euh, bàyyi ko xel moom mi di euh, Carlo Ancelotti nga xam ne boo ko bàyyee xel dana mën a nekk ca digg militaire bi waaye loolee euh, moo koy të ndax militaire bi dafa xat